ñu ngi dool di la ziaral rek. moo tax tardé baaxul. mais ça fait quatre fois que tu le dis j'ai comme l'impression que tu aurais envie de euh, m'humilier. <laughs> Hmm? mais tout àdduna bi yëpp bi yëpp xam nañ ni dama tardé. j'en serais fière mais euh, que pare goo ba léegi. waaye ñu dem pourtant po tegal naa la ay bagages de. Mhm. Uh-huh. alors li ñu li ñu li ñu nar waxtaanee nag euh, si rubrique actualité euh, di ay laaj yoo xamante ne nag taxaw na samp di y aurait-il un. un canapé. voilà un canapé présidentiel dans ce Sénégal de di laaj boo xamante ne nag Alioune Sow dina si àddu euh, si euh, bi euh, émission bi lépp rubrique actualité bien actu voilà maintenant qu'en est-il de la transparence dans la gestion des affaires publiques beneen bi nag nga xamante ne nag moom lañ lañ nar a ndarkape rubrique actualité des paie-t-on véritablement des impôts au Sénégal maanaam ndax dëgg-dëgg nit ñaa ngi fay ak wala ñenn ñaa ngi fay impôt fii ci Sénégal alors Alioune ñu njëkkee ci euh, euh, canapé présidentiel ci euh, Sénégal ndax dafa am ci atum 2024 ndax dafa am ci atum 2024 à l'issue de ces élections présidentielles Euh, euh, ce que euh, j'appelle un canapé présidentiel. D'accord loolu laa bëgg sax nga njëkk ma kaa leeral lan ngay oowee canapé présidentiel. Alors c'est-à-dire que habituellement. euh, on a dans nos démocraties, en tout cas en ce qui concerne la présidence de la République. est-ce que doo ma ko pàcc pàccalal si wolof rek. ñu mën a hmm. dégg. alors ci ci lu bari booy seet. Mhm. Euh, président de la République. Mhm. benn euh, tooguwaay la am tooguwaay maanaam benn fauteuil. fauteuil boo xam ne benn kese la da ngay toog nga pare jóg et eh sa morom toog ci fauteuil boobu. Mm-hmm. moo tax ñu naan question bi ndax léegi Sénégal amatuñu fauteuil présidentiel mm-hmm. mais canapé présidentiel la ñu am. Mm-hmm. boo gisee ma laajte loolu. c'est parce que ñëpp xam nañ ni canapé lu mu tuuti tuuti ñaari place la waaye fauteuil lu mu rëy rëy benn place la te ci lu ñu xam ci suñu démocratie contemporaine président de la république fauteuil am benn kese la dafay jóg dafay pare mu jóg moroomam toog yàlla def na ni nag may xalaat ba ci fajar. Mm-hmm. ma ne mais man Sénégal est-ce que sax léegi nekkatuñu ci situation boo xam ne léegi fauteuil présidentiel amatul. Mm-hmm. léegi kanape moo am maanaam ñaari place mm-hmm. la am donc ñaari président de la république. foo ko teg. ok fi ma ko teg mooy dafa am ku ñu fal mais dafa mel ni. du président de la république. ah lu tax nga wax loolu. li tax ma wax loolu mooy euh, un président de la république moom moo war a gën di fës parce que moom la ñu dénk ci benn diir destin wu réew te ñooñu constituer réew mi doon ay sénégalais ñoom ci moom la ñuy xool pour xool li taxoon ñu votel ko ndax mi ngi koy jaarale yoon. ndax moom lañu fal waaye yàlla dafa def ni président de la république bi ñu am tey ji nii tey ji nii li nga mën a wax ci moom bariwul par rapport ak ki nga xam ne moom mii moom moo ko fal alors que le président de la république moom peuple sénégalais moo ko fal ndax yaakaar bi ñu am ci moom wala bu fekkee ne nag Sénégal léegi dañu am yaakaar ci ñaari nit bu boobaa tamit nañ ko wax. ah est-ce que est-ce que mënuñu wax loolu parce que bu fekkee ne euh, nee nañ ne Sonko supposons Sonko moom mooy Diomaye Diomaye moom mooy Sonko wala lu ni mel àggul ba ci institution ba ci gestion de euh, la présidence. àggul ba ci institution yi. Mm-hmm. mënu fi ci àgg ndax. constitution bi dafa ne. benn nit la ñu fal pour benn diir. parce que ñi ko fal dañu am yaakaar ci moom ci diir boobee pour li ñu mbébét eh ñu mën ci am ay mbir yu concret maanaam ay satisfaction. kenn kooku la ñu choisir. mën nañ ko dimbali nag ba mu yegg si si ndax ku falu lu olof di wax eh ben ku ñëwee dañ laa dee. ndax ki falu tamit ay nit a ko fal. nit ñi ko fal ñëpp ki ci gën a tuuti ci Sénégalais bi te te te te woteel ko kooku bokk na ci ñi ko fal. Mm-hmm. waaye dafa si am ñoo xam ne aussi ay facteurs influents lañu mën na nekk Sophie euh, Cissé eh ben mën na nekk monsieur Fall. Mm-hmm. comme mën na nekk monsieur Sonko. ku si nekk am nga si pàcc boo xam ne mm-hmm. moo gën a c'est plus ou moins important par rapport ak keneen ki Ousmane Sonko lim ci am. certainement ci influence am na solo moo ëpp solo wala mën na ëpp solo par rapport ak El Malick Ndiaye lim ci am El Malick Ndiaye lim ci am mun na ci influence boobu pour ñu fal diw mën na am lu ëpp euh, euh, solo ci loolu par rapport ak Dame Mbodj Dame lim ci am peut-être Mimi Touré mën na am lu ëpp solo ci falin bi ci influence je parle que euh, je ne sais plus moi quelqu'un comme euh, le ministre de l'assainissement monsieur Dièye par exemple entre autres exemples pour wane ne ni dajale yooyu yëpp influence moo moo tax ba ñu yegg ci falin boobee dépassé seuil bi nga xam ni boo ko da bu buñ la ko buñ la ci choisiree seuil bi muy plus de cinquante pour cent plus un. bu boobaa moo tax ngay jàll au premier tour. et c'est ce qui s'est passé ci histoire au Sénégal loolu mosu fee am ndax opposition opposant musul ñëw gagner au premier tour une élection présidentielle. Mm-hmm. waaye problème bi mooy est-ce que dama laa fal kese moo tax léegi te man am naa ci influence boo xam ne njort nañ ni moo ci ëpp doole ci groupe bi. Mm-hmm. que ni forcément. man dama la war a imposer ni ma war a doxalee ba boo sàgganee sax war nañu mën a bokk toogaay bi te comme fauteuil bi dafa xat léegi dootul nekk fauteuil. canapé lay canapé lay doon. Mhm. ndax yow man maa la fal wala bokk naa ci ñi ëpp ñi la fal wala budul woon man sax amaana xañ na doo nekk président te loolu xalaat naa ni sax warul nekk waxu nit wala sax xalaatu nit parce que nit warul mën a xalaatee loolu. ndax quand ñun ñi nga xam ne am na lu ñu gëm gëm nañu yàlla buy fal nit dafa am fu mu koy jaarale mhm. xëy na ñaari baatu Sophie Cissé am na njëriñ ba nga xam ne diw falu na waaye ñaari baatu Sophie Cissé yooyu xëy na doyul il faut fukki baatu euh, euh, juróom fukki baatu euh, juróom fukki baatu Sophie Cissé yoo xam ne peut-être boo ci yokkee benn rek sofi dina gañe su fi euh, diw dina gagné waaye diw bu gañee aussi xamal ni am na ñeneen ñoo xam ne faluñu ko. mooy xëy na ñeneen ñi nga xam ne bis boobee élection yi amoon. ñoom jëluñu seen carte jox ko ki nga xam ne moom moo gagné waaye du tere ki nga xam ne moom la ñu fal mu nekk président de tous les sénégalais bu mbir ñi jeexee. bu ñu yeggee ca cappaandaw ga ba ñu ne diw moo gagné parce que diw dafa am na muy gagné ndax ci histoire démocratie kenn mënul gagné même dans les régimes de dictateurs kenn mënul gagné élection à 99 virgule 99 pour cent y toujours sax benn petite phrase boo xam ne même bu fekkee ni ñemewuñ ko wax d'accord wuñu ci alors je pense que tey gi nii j'aurais comme l'impression que ni on nous fait croire on veut nous faire savoir wala voilà, on veut ci lu bees mettre ci bopp sénégalais yi que ni diw moo fal diw kon diw pratiquement moom ak diw la ñu war a yamale. mais yaa ngi fàttaliku Alioune euh, euh, début euh, gouvernance bu Diomaye dañ ne woon ne dañuy renforcer les pouvoirs du premier ministre. absolument alors boo gisee ñu waxoon loolu. Mhm. man bi ñu ko waxee dama ne loolu. eh bien duñ ko def. Mhm. waxoon nañ sànni. dañuy dellusiwaat le poste de vice-président. mais loolu bu fekkee ne dañ ko bëgg a def bi coow gi bare dañu ne sax vice-présidence boobu dañ koy wax nii mais sóoraale wuñ ko pour léegi dañ koy sóoraale pour beneen mandat bi. Mhm. amaana xëj na li ma njortoon moment boobu waaye dara wóoruma ci. xëj na moment boobu boo gisee ñu ko doon xalaatee noonu c'est peut-être xëj na ëllëg après deux mille vingt lan vingt dina dinañu euh, euh, wëlbati carte gi ndax ki nekkoon président nekk vice président ki nekkoon premier ministre nekk président. mais est-ce que noonu nga ko yaakaar noonu nga ni nga ko xalaatee noonu noonu noonu la amee si seen bopp est-ce que nekkul ne dañoo bëgg comme ils sont deux ils veulent euh, juste gouverner ensemble. mais la la question le mbir mi mooy. Mhm. on n'a pas à être deux. Mhm. on n'est un normalement. moo tax may wax waxu fauteuil présidentiel Macky Sall bokkul woon ak nguur gi Amadou Ba Abdoulaye Wade bokkul woon ak nguur gi Moustapha Niass ci premier gouvernement am moom kese moom moomoon nguur gi la preuve bi coow jibee au bout de mois malgré que Moustapha Niass indi woon na indi woon na ko benn euh, suffrage nombre de suffrage bu am solo pratiquement 17 pour cent mi la ko jagleel au deuxième tour eh bien ça n'a pas empêché que ni moom ci boppam bi mu choisir Moustapha Niass au bout d'un certain temps par rapport ak gis-gisam par rapport ak gis-gisam. Mm-hmm. eh bien mu ne euh, euh, Moustapha Niass mënatuma continuer ak yow. Mm-hmm. waaye mun nga mën a tey ji nii que wute na parce que Diomaye mooy Sonko. te Sonko mooy Diomaye. te lu benn mën ñaar moo ko ko dàq. te lu benn mën ñaar moo ko dàq moo tax sax président de la république di def ay délégation di bind ay décret pour ñu koy jàppale. ci gouvernement boobu nga xam ne moom moo ko euh, pratiquement validé. normalement sax ci suñu démocratie ci inspiration la war a doon. waaye dafa mel ni gouvernement bi Ousmane ko moo ko teg te Bassirou Diomaye Faye dafa jóg rek moom la président pour acquiescer maanaam. ne gongo peut-être parce que ya une certaine dit-on reconnaissance politique par rapport au choix qui lui a été fait d'accord naa mën na nekk waaye waruñu ko puus ba fàtte ni yàlla mooy dogal te Ousmane Sonko bu euh, kiyam comment dire si euh, nu ñu koy waxatee bu euh, bu euh, kii yam bu pexeem. sotti woon woon kon moom mooy nekk président de la république. waa mais soo pula faut pas oublier aussi que si dernière campagne waxoon na ni que ni dañ koy gunge dinañ ko gunge ba fal ko. Mhm. mais bu ñu ko falee itamit li nga xam moom la ñu bëgg mu doxalee. moom lay doxalee bu ko doxalee wu dinañ wañ noppam juste pour dire que ni moom itamit depuis le début. xamoon na ni dina gunge xale bi mais bu yàlla defee ñu fal ko itamit dina topp ci ginnaawam du ko bàyyi noonu pour ñu àndandoo ensemble liggéey Sénégal. maanaam il a été clair. dina est-ce que je peux je peux. je vous en man damay wax ni. bon euh, tout le monde sait que. Mm -hmm. premier ministre. Mm -hmm. euh, Bassirou c'est le président. Mm -hmm. mais nañu nañu nañu fàttaliku tuuti. que beaucoup de pays européens seen président sa yenn sax du feeñ dañuy defe ne seul le premier ministre a ses pouvoirs te moom mooy doxal yaa ngi dégg. Ah. donc euh, loolu gis nañ ko ci Israël gis nañ ko ci Allemagne gis nañ ko ci Russie mi mhm. parce que autant Vladimir Poutine yi mook son acolyte là changé na nekk kii nekk premier ministre kii nekk président kii nekk premier ministre kii nekk président ba waajee ko mujje moom Poutine moo mujjee nekk président. donc man gis naa ni bon euh, Ousmane a gën a fës mais jomaay euh, il son neer et puis am na ay xalaatam mais comme Ousmane waayam la c'est son premier ministre mu bàyyi ko mu doxal moo tax Ousmane gën a fës. et c'est le militant qui pas n'oublie pas. Mm -hmm. vraiment lu di ñàkk. Mhm. Ousmane ay ñàkk. et c'est le militant qui parle. léegi ñu bàyyi Alioune mu mu àggale. waaw ah, justement. Mhm. Euh, xam nga lu tax d'accord ma ak sama sango bi. Mhm. <laughs> mooy déjà l'exemple de la Russie n'est pas un bon exemple. ndax boo gisee alternance boobu pour Sénégalais yi ñuy déglu. amoon en Russie c'est parce que moment boobu Vladimir Poutine. nekkee ñaari yoon président de la république constitution boobu bu Russie daf ko ne woon amoo droit am beneen mandat comme moom gëmoon na ni ak ñoom seen groupe ak seen parti bi bi nga xam ne euh, euh, Boris Eltsine moo ko ko légué woon après Gorbatchev eh ben moom dafa xalaat ñoom dañu xalaat ni comme yoon loolu la wax ni amatul droit am beneen mandat moom nee na dina jël un premier ministre ci élection yooyu mu mu mu mu mu mu nekk candidat comme sax bu nekkee candidat benn mandat moom dina am possibilité dellu waat parce que loolu yoon terewu ko li yoon tere woon mooy ñetti tegloo ci président de la république loolu la ñuy tere ñaar la ñu yemale woon waaye yàlla dafa def ni bi président boobu gañee bi mu jiitaloon muy le premier ministre et ki s'appelait euh, Medvedev et eh bi mu ko tegee si la ñu changé mbir yi ba pare def foog naa mandat illimité parce que tout simplement ñoom gëmoon nañ ni Vladimir Poutine la ñu soxla moo tax bi Medvedev defee mandaam Poutine dellusiwaat fekk changé nañu mbir mi affaire bi demee noonu ba nga la xam ne léegi mandat illimité la pour euh, Vladimir Poutine parce que moom la ñu wóolu pour la Russie en tout cas pour l'avenir de la Russie pour quelques générations à venir mm-hmm. léegi munoo def différence boobu ak Sénégal parce que Sénégal bu ñu falee nit nit kooku la ñu fal donte am nañu ko dimbali comme ni ma ko waxee sa njëlbeen ku si nekk am nga ci sa dose dose bi Ousmane Sonko am xëy na moo gën a forte que bu euh, euh, euh, j'en sais rien moi Ayib Daffé que je pense parce que maa ngi dégg mi ngi saaga opposition bi eh moom dose boobu Ayib dafe amu ko ci amaana sax xëñ na <coughs> Atepa moo moo ko ëpp dose ci biir donte Atepa eh. bokkul ci ate bokkul ci mm-hmm. ci ci ci Pastef mm-hmm. ndax il me semble que Ayib Daffé boobu est-ce que du woon non keneen ki la foog na je plus enfin bref en tout cas mooy lu mu Ayib Daffé kan mooy non du Ayib Daffé Ayib Daffé c'était le maçon non de l'autre là de l'urbanisme là kooku bokk sëñ bi xam nga lu tax mënul bokk ndax euh, euh, dafa am koo xam ne moom lañu ñu fal du affaire u république du affaire u gaayen affaire u fal benn nit sinon ñu fal un binôme ne leen doxal leen mm-hmm. waaye bi ñuy fal kenn la fal ba pare sëñ bi te loolu je pense que ni xëñ na war nga ko xam maa ngi la koy wax sànq ne amaana xëñ na bu pexeem sotti woon moom Ousmane Sonko Diomaye du nekk président. bien xam naa boo nee bien sur hmm. certainement dina dinaa d'accord ak yow waaye ni nga. li tax nga ne bien sûr ak li may xalaat nga ne euh, li tax ma d'accord ak yow bien sûr xëñ na bokkul ndax amaana xëñ na Ousmane Sonko bu doon sagoom élection yooyu am au mois de février amaana Macky Sall dana ko changer ba xëñ na ñu def ko au mois de juin wala au mois de décembre ndax ndax moment boobu buñ ko changé woon Ousmane Sonko dina ci kontaan ndax boobu amoon na possibilité léegi puisque xëj na xëj na laa wax déggoo na ci woon ak Macky Sall ancien président de la République pour ñu changer pour ñu changer date bi pousse ko waaye yàlla dafa def ni am na ay kilifa yu taxaw ci réew mi bañoon ne élection dina am par force man nag d'accord mu woon élection am ndax dama bëggoon ñu lijjante yu bari avant ay élection di am comme dëkk bi bari woon na coow. yu bari comme waaye raison yi bokkul woon. Mhm. ndax ñële dañ ko bëggoon pour xëj na dugalaat Karim Wade. Mhm. ak dugalaat usmaan Sonko. Mhm. te Ousmane Sonko fu mu duggee jomaay dootul bokk. te xëj na bu boobaa kenn du wax Sonko mooy jomaay. xam ndax dégg ngeen li may wax. du waxu dof nag de. <laughs> mais Alioune euh, monsieur Diallo euh, kàddu yi nga xamante ne yëkkati na ko euh, muy joxe exemple Russie ak Israël nga xamante ne dafa am vice-président et autres euh, te Poutine presque mën nañ ne dafa am mandat illimité est-ce que rejoindre rek kàddu yi nga xamante ne kii di premier ministre Ousmane Sonko yëkkati na ko di xam ne ne waajaguñ pour joxe nguur gi. non xam nga Israël sax. Mhm. exemple bi sama sang bi joxe woon mhm. léegi Diallo. Mhm. Diallo Dieye. eh bien nekk mënul bokk. ndax constitution Israël dafa jox organiser euh, euh, l'élection d'un président de la République mais kooku bu ñu ko falee il est pratiquement là en Israël en tant que président à titre honorifique c'est le même cas en Allemagne où effectivement c'est le premier ministre ñu koy wooyee chancelier moom la ñuy fal te sax falin bi c'est pas un suffrage c'est pas au suffrage universel direct c'est indirect parce que si sa majorité bi lay dépendre pour nga nekk président de la république système allemand boobu su amoon tey jii nii mën nga considérer ni Ousmane Sonko mooy doxal que président de la république amul lu muy doxal maa ngi koy wax démb au Sénégal c'est le président de la République du Sénégal qui définit la politique de la nation ou qui la détermine. Le Premier ministre du Sénégal ne fait que conduire la politique de la nation. moom dañ koy préparer eh, président moo am ay inspiration am am ay xalaatam am ay mbiram am ay bagaasam ci ni mu euh, ni ñu ko fale ak ni mu bëggee réew mi doxee ci diir bi ñu ko fale mm-hmm. mu teg ko teg ay nitam pour loolu waaye am ku si jiital ci nit ñooñu muy le premier ministre pour mu organiser ko mbir mi mu servir ko d'intermédiaire maintenant nag ou le premier ministre du Sénégal maintenant a tout comme ça a toujours été le cas est intermédiaire entre le gouvernement organisé en principe par le président de la République ou alors il ne l'est plus et que maintenant c'est le premier ministre du Sénégal qui définit et conduit la politique de la nation parce que mën na nekk waaye il suffit juste que ni ñu changer kayit yi këyit yi nag mhm. bu may wax kayit yi mooy constitution bi mhm. mais il suffit juste de le changer waaye comme changer wuñ ko normalement ci kayit yi fi ñu toll nii président mooy définir la politique de la nation maintenant nag premier ministre bi ci suuf mun na koy conseiller di koy influencer di koy jox ay bagages waaye ci kaw ci feeñ bi du moom sax moo war a wax diw dañ koy dugal diw dañ koy dàq machin parce que loolu baaxul mm-hmm. ndax du moom moo war a def loolu ki war a décider de manière ultime kooku kenn kese la mm-hmm. mooy ki ñu fal ci benn diir te ki ñu fal au suffrage universel. Mhm. direct. d'accord Alioune euh, balaa maa jox monsieur Fall donc euh, monsieur Diallo euh, mhm. kàddu yi nga xamante ne yëkkati na ko maanaam exemple yi nga xamante ne cité na ko. donc mën nañ ne loolu ah, méngoowul ak suñu constitution réew. méngoowul parce que fële président kiy doxal réew mi. di ko gouverner. di inspirer réew mi di ko di di définir la politique du pays di ko di di ko conduire en même temps mhm. kiy def loolu yëpp. kenn la muy le premier ministre si c'est le cas d'Israël c'est le premier ministre si le c'est le cas de l'Allemagne c'est aussi le premier même si c'est le cas de la Grande-Bretagne c'est le premier ministre parce que en réalité le président allemand le président israélien et le roi d'Angleterre ont à peu près des fonctions équivalentes c'est-à-dire à titre honorifique. may wax nag mhm. nit mënu koo bu amee Sénégal lan la lan la mën a jur. Hmm. bu amee Sénégal mën na nekk. mais bu boobaa nañ ko changer. nañu changer kayit yi mën na nekk. waaye bu boobaa léegi sax mënoon nañu ko changer bu la neexee bu ñu amee majorité léegi nii ñu changer constitution bi ne léegi au Sénégal c'est le premier ministre qui définit et détermine euh, et conduit la politique de la nation. Mm-hmm. bu boobaa président bi dañuy wàññi ay dooleem ne ko yow lii mënatoo ko ki nga xam ne. mooy premier ministre léegi moom mooy gérer directement ba pare nekk en concomitance avec éventuellement une majorité à l'Assemblée nationale qui lui serait favorable moom lay wooyee euh, une convergence de majorité. d'accord si Fall. voilà donc euh, par rapport ak euh, monsieur Sow li mu wax moi je pense que perception nit nit nit ñi la bon moo tax canapé bi. su ma ko mënoon xaw a décaler tuuti. da lay déranger. ah waaw moo canapé bi lay déranger. parce que peu près une dualité. Mm-hmm. bu ñuy déglu ci waxu le premier ministre à chaque fois bu fekkee di wax ci problème mu. Mm-hmm. gouvernement nation. il dit sur instruction. du président de la république. d' et moom on le prend toujours au mot. Mm-hmm. donc mooy dañu am seen seen importance. dès l'instant que moom niwul j'ai décidé mais à chaque fois mu ne c'est sur instruction du président. donc moi je pense que mën nañ mën nañ ut ñaari fauteuil benn bi xaw a nekk tuuti ci ginnaaw. benn bi xaw a nekk ci ginnaaw. ñu def ñaari fauteuil mais normalement noonu la war a demee. mais problème moom mooy li tax des fois man laajte nii est-ce que noonu la demee est-ce que dootul ñaari fauteuil benn bi jiitu benn bi topp ci ginnaawam et que léegi canapé la dañuy toogandoo moo mm-hmm. gisee ma xalaatee noonu c'est parce que dafa am ay réaction ak ay comportement yoo xam ne mm-hmm. dans l'histoire de notre république musul woon am mm-hmm. ci wàllu premier ministre de la république Sénégal musul woon am li Ousmane Sonko am comme attitude et comportement dans sa façon de de de gouverner ou de gérer le gouvernement de Diomaye parce que Diomaye moom moom gouvernement bi mhm. parce que Diomaye mooy décrété moom moo fal Ousmane Sonko fal ay ministre Ousmane Sonko donte nag bu ko neexee ñu am ñu ñu ko proposé ndax nag j'aurais comme l'impression que ni sax mhm. ki téye gouvernement bi mhm. ki moom gouvernement bi dans l'histoire de la République musul am ndax ki moom gouvernement bi ñëpp euh, Ousmane Sonko moo leen fal du Diomaye bu fekkee ni am na lu ñu mën a njott rek donte munuñu ko waat waaye booy xool ñu bari ñu ñu teg foofu c'est pas parce que Diomaye daf ko bëgg véritablement te sax xam nga affaire bi xawoon na fi yéex tuuti parce que ay werante ak ay lijjanti dafa amoon ci ay mbir yoo xam ne ay choix yoo xam ne xëy na daa xawluñ ci woon sa njëlbeen xam naa ni bu fekkee ni euh, xaw ngeen tuuti euh, kii euh, nu ñuy waxee curieux ci olof Euh, dañ kumpa waroon ngeen xam ne amoon na ay gàllankoor yu xawoon am ci yenn façon yi waxtaan yi mhm. non bii moom damay ruube <laughs> bu mais est euh, waxtu waxtu bi moom moo ñu xocc te pourtant on a deux autres points yoo xamante ne mën nañ si waxtaan maintenant euh, ma ma préciser rek Alioune deful affirmation question la posée di voilà di jéem xool nan la nan la siy tontu Alioune par rapport ak li xew quoi voilà voilà xam nga ni ki euh, ñeme woon na ko. Hmm. Euh, Macky Sall. non ak ñeneen ñi sax mooy premier ministre yi jàll ci wetu mag Ba Amadou Ba ñeme woon na ko mm-hmm. est-ce que euh, le banquier là euh, Abdoul Mbaye ñeme woon na ko mm-hmm. est-ce que ñeneen ñi ñi toppoon ñi toppoon ci mbir mi ay ñoom Mimi Touré ñeme woon nañ ko mm-hmm. da xam ni ñii ci ginnaaw nit ki la ñu nekk mais bii da ngay gis ni ñii dañu àndandoo àndandoo boobu nag man d'accord naa ci bu dee war na mën a nekk waaye il suffit juste que nekk man mi nga xam ne républicain la te dafa am nu may liire constitution nañ ma ko changer rek parce que ko ko waxee sànq am nañu une majorité à l'Assemblée nationale parce que bu boobaa il suffit juste ñu ne le président de la République ne définit plus la politique de la nation. Mm-hmm. Le président de la République, mm-hmm. c'est le Premier ministre maintenant, non seulement qui définit la politique de la nation, mais aussi qui la conduit. Alors que léegi ci yoon li ñu bind ci kayit yi mooy le Premier ministre ne fait que conduire la politique de la nation qui est définie par le président man comportement boobu rek la te ci wàllum diplomatie ak waxu bitim réew. c'est une exclusivité présidentielle. normalement premier ministre waru ci wax. moo tax bi Ousmane ko waxee ne dafay dem AOS après mu changer avis parce que boobu erreur de communication la woon amaana xëy na boobu xalaat na ni rek. moom yooyu moom la quoi mooy président de la moo tax bi muy wax loolu xëy na tey ko waaye après ci la ay correctif am te ni ñu gisee ni ay correctif am na mooy ni ñu gisee ni après finalement kan moo mujjee dem Diomaye d'accord euh, ñu ñëw ci deuxième ponk bi donna tamit ab laaj euh, mooy qu'en est-il de la transparence dans la gestion des affaires publiques maanaam euh, ndax transparence am na si anam bi nga xamante ne ñu ngi koy doxalee si ci suñuy mbir xam nga Marie Sagna dafa wax ni le système est toujours là mm-hmm. j'ai souri mais amèrement mm-hmm. parce que dama doon wax ni am na ay attitude yoo xam ne nit ki bu ko amee ci opposition. mun na ne dañuy changer waaye bu toogee du ko changer. parce que attitude yi dafa am ay attitude yoo xam ne àndul ak changement ay comportement yoo xam ne àndul ak changement ay ay dédiction si je puis dire maanaam nga wax dara nga dédil sa bopp yooyu mënul ànd ak koo xam ne war nga ko mën a wóolu pour wóor na li mu wóor la ni kii bés bu toogee day changer changer mbir mi. li tax ma wax loolu mooy euh, man dafa am problème. parce que dañu ne réew mi xam nga yaa ngeen di wax yenn saa yi seen budget bi ngeen doon wax noonu boo gisee des fois muy manqué gars yi di am ay problème hmm. c'est parce que xaalis moo amul waaye duñ ko wax mu jëm ko hmm. day mel ni kër bu amul dépense rek hmm. day wax jabar yi xaaral rek xaaral maa ngi dem lijjanti maa ngi dem lijjanti ñuy xaar wala xale yi mun nañ sax di def ndox ndox bu tàng euh, ci cin bi di ko muy baax ñuy espérer loo xale bu xale yi ni ni ni añ bi léegi mu pare fekk ni na à 13 heures xale yi du ñu naree añ xëñ na bu leen yàlla dimbale ay 20 heures la ñuy añ pour rek des fois dafa am yoo xam ne dama koy gis gëw ma ni pour le moment ni transparence dina am dans la gestion des affaires publiques xëy na nag mënoon naa ci étaler wu lu gën a guddee waaye benn wala ñaari exemple kese laa indi jox euh, mooy euh, euh, waa kër Ousmane Sonko yi dafa am ay wax yu doy waar yu ñu daan wax mhm. ci parce que sax man loolu d'accord naa muy am waaye ñoom dañu waxoon ni d'accord wuñ ci parce que man d'accord naa ci waaye li ma doo tax ma d'accord ci dafa am beneen gis-gis ni ñuy gérer fonds politique yi man sama gis-gis mooy ni ñu koy gérer en France je pense que moom moo gën moo ëpp transparence te bu ñu amee temps xëy na ma expliquer leen ko. waaye ñoom dañu waxoon non seulement dañu waxoon ni waxuñu sax waxu gérer dañu ne loolu dafa xaraam. fonds politique dafa xarab waaye gouvernement euh, régime u Diomaye Faye ñi ngi ci nguur gi depuis ñaari weer dama bëggoon laajte ndax. bi ñu nekkee ci nguur gi ba tey laal nañ ci fond politique yooyu nga xam ne dafa dafa lan dafa xaram walla laaluñu si est-ce que le 3 avril le 2 non pas avril le 2 le 2 le 2 mai Diomaye question la laal na. parce que xam nga fonds politique yi ay pàcc la dañ la koy jox mun na nekk onze milliards waaye dañ la toj dañ la koy dañ la koy pàccal ci fukki ci fukki fukki weer ak ñaar yi est-ce que moom bi mu commencé jot na ay pàcc d'abord laaj ci la ah. kenn du mu yóbbu ci comment euh, dire yaama est-ce que le deux mais laal na plus de sept cent million mom président Diomaye fay ci wàllum fonds politique est-ce que le premier ministre laal na plus de cent millions ci wàllum fonds politique le deux mai le 3 juin est-ce que est-ce que question laal na moom Diomaye ci fonds politique yi yu xaram yi plus de 700 millions le 3 juin waaw wala déet muy ñaareelu pàcc bi est-ce que le premier ministre au nom de la primature laal na plus de 100 millions le 3 juin c'est une question qui est posée et qui est bien ouverte et qui mériterait des réponses xam nga lu tax parce que man sénégalais yi laay waxal te comme dañu war a leeral sénégalais yi Omar Faye leeral askan wi <laughs> bëggoon naa nag. nekk Alioune Sow leeral askan wi. wala euh, gindi gindi gindi ah, gindi askan wi. Alioune Sow gindi askan wi. dafa bëgg gindi askan wi moo tax muy laajte loolu pour que ñu ngeen tontu ci parce que comme dañu wax euh, vertu ak morale dañuy wax transparence lépp dafa war di leer moo tax ma leen di laaj pour ngeen leeral sénégalais yi. comme man aussi dama bëggalu leer moo tax may poser question boobu est-ce que fonds politique yi ngeen waxoon. bi ngeen nekk ci opposition bi dafa xaram laal ngeen ci commencé ngeen di ci laal wala déet ma jox leen ñaari date le 2 juin le 2 mai ak le trois mais est-ce que kii doon njiitu réew mi laal na plus de 700 millions ñaari yoon le 2 mai ak le 3 juin et est-ce que le premier ministre de la République du laal na fonds yooyu nga xam ne dafa xaraam laal na plus de 100 millions moom le premier ministre ak le trois juin waaw wala déet. parce que xam nga lu tax may laaj loolu. Alioune man ma laajaat la sax euh, mooy que ni xanaa daa am loo yëg te ñun yëguñu ko. non man man man man xaw ma man damay laaj rek. Euh, wóoru euh, l'autre là Fabrice Fabrice Ngéba. man damay laaj dong. dama bëgg juste que ñu leeral ñu. loolu parce que man dañ maa waxoon ni. waaye boobu bi ñu ma koy wax dama leen ne déedéet déedéet li ngeen di wax taxawul. Mhm. dañ ma ne woon loolu dafa xaram ma ne déedéet c'est pas vrai. Mhm. waaye nag mois boobu. encore une fois dañ ne non. léegi lan moo tax mu bañ jiw. moment boobu noonu mais moment boobu may wax loolu. c'est mm-hmm. parce que dama gëm ni fonds politique dafa am njëriñ. Mm-hmm. ndax fonds politique dafa am njëriñ waaye ni ñu koy gérer laa bëggul woon te waxoon naa ko ci Macky Sall parce que am na ñoo xam ne nee nañu euh, am na koo xam dafa mos a laaj ñoom mais grand li ngay wax nii lu tax waxoo ko woon ci Macky Sall. Mm-hmm. mais man ça dépend du sujet. yëpp moo ëpp moom wax te comme ci sujet a solo. la ñuy wax forcément ci loolu rek a wax. parce que yooyu moo doon def ay dégâts ci réew mi ak ay problème yoo xam ne daf fi amoon donc forcément da nga doon ñëw di joxe sa xalaat ci loolu parce que ci loolu rek moom parce que loolu moo doon def actualité. Mm-hmm. waaye bi yeneen yi daan def ak actualité mais daan naa ko wax. Mm-hmm. comme nag vaar dafa xew da ngeen di xool aussi dem gëstu ji. Mm-hmm. parce que loolu jàng nañ ko wax xëy na nag daañu si dul insister. parce que nit ñi ci li ñu bëgg. ñu lay xamee ci loolu rek lañ lay puus. loolu rek lañ lay jé loolu rek la ñuy jéem wan sénégalais yi. mais duñ ko duñ leen leen wan yeneen yi nga xam ne yow waxoon nga ko leen intéressé rek pour décrédibiliser loolu la ñuy wan pour que nga am pour que nga ñàkk crédibilité waaye bu fekkoon dañ doon wane lépp kon dinañ ko xam waaye am na ñoo xam ne nag dofuñu parce que am ñoo xam ne suivre te xam nañu te dañuy gis. te fekkee nañu te dañuy suivre de très près te dañuy gëstul aussi seen bopp xaaruñu ñu leen di sànni ay bagages ñu gobe ko rek yam foofu dañuy gën a xoolaat nit ki euh, lan la fi mës a wax donc man foofu rek lay laaj bu weesoo loolu dama beneen problème boo xam ne comme réew mi dafa am problème te yéen ñi kenn du leen fay seen bagage yi naa la bu leen ko fayal c'est ne budget 7000 la 7000 mm-hmm. milliards fekk ni 4000 nga am que tout simplement kiiwul loolu moo tax sax problème yooyu waaye léegi mais xaalis boobu xëy na am na ay weccit yoo xam ne bu ñu ko dajale woon na loolu dina leen ko fay par exemple ay fonds politique yi fonds fonds commun yi fonds commun yi nekk ci ci dans la haute administration bu ñu ko dajale woon boo imaginer woon ñooñu ñooñu nekk ay inspecteurs des impôts yeeg machin ay les douanes ak yooyu li ñuy gañe ci xaalis sang bi wallaay bu ñu ko dajale woon kon yéen ñi li ngeen di wax ni coow du jëpp parce que nag des fois ah, agence judiciaire de l'État boobu noonu euh, mënu la wax lépp waaye des fois yéen da ngeen yaakaar ne caisse bi 2 milliards lañ ko voté mais amaan na boo sàgg ne 400 millions sax nekku ci waaye moom du fi nekk di la ko wax. Mhm. parce que y a la solidarité gouvernementale. Mhm. te moom dafay jouer le jeu. par rapport ak ki nga xam ne moo ko fal am na yoo xam ne kenn mënu ko wax population yi soi-disant te loolu yëpp jaru ko fi woon. Mhm. pourquoi du ñu wax transparence encore leeral bi dina leen mais sëñ bi fii dañu waxoon budget sàngam la mais sax ñoom sax ñi jiite réew mi comme ay ministre des finances ak yooyu ñëw taxaw expliqué ne lii moo xew ñun woon lii la ñu bëggoon waaye lii lii la ñu am li ñu bëggoon ak li ñu am bokkul. loolu moo tax ñu am problème moo tax fay ñu de ce pays là mooy ameel ay ñu bari ba ay chef d' yu bari fa dette intérieure bi boo gisee mu bari nii lan moo tax fay ñu yenn chef d' yi mm-hmm. c' est parce bi amul xaalis léegi li mu jot a yor ci yenn priorité yi la def yoo xam ne xëy na ñoom ci seen gis-gis si la ñu gis ni moom moom la sénégalais yi gën a soxla mm-hmm. yéen ñu tegee leen ne donte xiif ngeen donte am ngeen problème donte lijjantiwu leen yéen tamit seen seen i yi ngeen ne euh, da ngeen yaakaaroon ci xaalis boobu pour mën ko fay mm-hmm. voilà c'est tout vous savez te te lii lii may wax nii sëñ bi xam naa nag dafa neexul rek mais lenn Serigne Touba Mbacké mooy dëgg te nit mënu koo dindi mais nii la demee léegi nag fonds politique yooyu nañ ko jéem a seet nii léegi man xam nga loolu décret kese la waaw mais léegi lu tax du ñu arrêté fonds politique yi fonds fonds commun yi comme déew bi dafa am problème ba bis bu marché neexee xëy nañu ñu xoolaat nañ kel indiwaatee waaye lu tax fonctionnaire yooyu ñu leen di jox autant d' argent tey jii nii da amee ameel 100 millions da ngay ameel état bi 100 millions nga ko doon nëbb ñu jàpp la da ngay fay 100 millions yi waaye da ngay fay ay taxes supplémentaires parce que li ñu la jàpp moo tax ay amende xëy na mun na yegg ba 130 wala 140 millions yow 100 millions yi rek la ñuy delloo ci gafaga nguur gi waaye yeneen 40 yeneen 40 millions yi yi yi yi ñu lay teg comme amende mais ñoo koy séddoo. est-ce que mën naa def benn parenthèse bu ndaw par rapport ak li ñu wax c'est très intéressant mais nag sëñ bi man lu intéressant rek <laughs> <laughs> li mu wax nii ci par rapport ak fonds commun bon moi il m'est arrivé en de mille. Euh, dama la fa yokkal benn affaire bala nga boo retraité. maanaam mhm. ma koy fàtte. Mhm. boo retraité nga nekk euh, patron inspecteur euh, inspection de domaines. Mhm. j'ai appris que boo retraité pendant ñaari at. da ngay continuer di bénéficier wu ci fonds commun. sur propos. bu oh. fekkee du dëgg ko mm-hmm. Mm-hmm. en 2013. te mm-hmm. laaj la ba léegi. en 2013. yàlla dafa def les bateaux russes là qui écumaient nos mers là. waaw. on m'a délégué ma ànd ak les les forces françaises. Mm moi qui les ai arraisonnés. waaw. quatre navires. quatre navires ils ont payé ils devaient payer du moins un milliard milliard. deux cent millions mais de fil en aiguille il y a six cent millions qui ont disparu. Mm-hmm. non la. non c'est c'est une façon de parler. Mm-hmm. donc les Russes ils ont payé cent millions. Mm-hmm. mais de ces six cent millions là moi qui vous parle aujourd'hui ñu ngi ma ameel xaalis. ndeysaan. ñaata lañ la yoreel. celui qui moom lañ la si jox ñaata lañu la yoreel laa wax. ñaata lañ ma yoreel man mi mhm. vingt six millions yi poussière. Mhm. ci li ñuy wax ni d' accord. gis nga li nga wax ne yow. est ce que amul lu tax muy am. Mhm. c' est parce que dafa am ñoo xam ne. dañ leen jox ay salaires yu baax pour ñu def liggéey bi. waaye ñoom nee nañu. salaire yooyu doyul. il faut que ñoo am ay dil yu ñuy teg. genre bu ñu jàppee nit parce que ñoom ñoo am facilité de signature et de contrôle bu leen neexee ñu jàpp bu leen neexee ñu bàyyi eh ñoom ci loolu il faut ñu nekk ci ay multimillionnaires mm-hmm. multimillionnaires wala wala milliardaires mm-hmm. te loolu rek moo leen ko mën a jox moo tax ñu mën a am ñetti kër mm-hmm. ak ñeenti kër ak ñetti tool ak ay oto yóbbu seen doom yi bitim réew ah, am xaalis boo xam ne ñoom bés bu ñu nekk bés bu ñu liggéeyatul wala bés bu ñu nekkatul ci poste boobu dootuñu namm ci dara loolu bu ñu ko defee xamal ni dafa am loo xam ne dafa waroon dugg comme 1 milliard 500 millions yi nga wax xaw ma 600 millions yi waroon dugg ci gafaga nguur gi. kooku ñu jàpp noonu bato boobu. xaalis boobu dafa waroon dugg ci gafaga nguur gi xëy na ñaata euh, euh, abri provisoire la mënoon régler. ñaata enseignant la ñu mënoon yokkal ay indemnité de logement. pour que sax enseignant bi nga xam ne dafay dund jàngale ay boroom xam-xam ba dee ba retraité du am sax kër bu mu dëkk. bët ki laa dégg ni enseignant yi seen moyenne salariale ba ba ñuy retraité 180 000 francs la. vous trouvez que c'est normal waaye léegi pourtant ki nga xam ne moom dafa nekk euh, euh, ci benn position parce que dañ ko ne directeur de sàngam nga xam ne moom il suffit mu ne bàyyi leen rek ñu bàyyi waaye bu ne bàyyi leen ñu bàyyi waaye am na ku lu mu séq a kële mu bàyyi waaye te loolu yow doo ko yëpp mhm. xëy na am na intermédiaire boo xam ne ci kooku la ñuy jaar pour mhm. ñu téye yenn alal yi ñun ñoo yàq suñu réew mhm. ñun ñoo mais nag dañuy am. Mhm. waaye dañuy sacrifier suñuy population. Mhm. parce que moo tax suñu budget yi di manqué ndax weccet yooyu bu ñu ko dajalee woon ñaata licence. Mhm. de pêche la ñuy jox ay nit. parce que tout simplement ki nga xam ne mooy joxe autorisation bi. dafa am yoo xam ne jarul ñu ko kay dikk moom xam ne bu signé. li nar a ñëw ci loxoom. ak ay nitam ñi nga xam ne ay complice la kii dina am 50 millions. kii dina am 100 millions. kii dina am 300 millions. yaa ngi imaginer nga nekk foofu pendant ñaar ñetti at nga nekk directeur de sangam ci yooyu. yaa ngi imaginer ñaata ngay denc ci alal. parce que autorisation bi yow yaay wax waaw. wala yaay wax déet. waaw ak déet boobu signature boobu rek moo lay jox ay millions yi millions. parce que tout simplement yow am na yoo xam ne mën nga ko def te kenn du la laaj du tax nga def ko. nga nangu ak nga bañ a nangu. donc ñun li ngeen war a def mooy dogguma ko rek. mooy il faut que ñu góorgóorlu. fexe les bateaux de pêche là que vous la là ay 4 5 milliards léegi pourquoi ak ñun sénégalais du ñu am ces bateaux là nga xam ne day doon ay bateau industrie yabooy bi ngeen di utiliser nii par exemple bi gars yi euh, Russie di utiliser mooy bateau Russie ngay wax noonu mais ci biir bateau yi yabooy bu bu ñëwee après ci ay paquet lay mujjee ak ay ay kii nu tudd euh, ay boîte de conserve te yabooy yooyu di jar ay 200 francs 300 francs ñoom bu ci amee ay milliers de tonnes bu ñu demee Russie paquet bi kese rek rek laa lay wax ne mënuma la wax ñaata lay jar euh, benn boîte kese ñoom liñ ciy gañee ci alal waaye ñun lu tax ñun ngeen doo leen def en sot que ngeen am ces mêmes bateaux là état bi jàppale leen ci benn mandat état war na mën a génnee benn cent milliards boo xam ne dina jàppale ay armateurs sénégalais nga xam ne ñoom non seulement bateaux yooyu dañ ci am parce que bateaux yooyu ay 3 5 milliards lay jar maximum nga xam ne lépp di ngeen ko def ci biir après loolu Russie di def ñun ñoo koy defal suñu bopp am ay employés denc alal bi ba pare jaay ko Russie mm-hmm. ngi leen ko jaayee ñun manque à gagner boobu loolu réussite gagner ñun ñoo koy gagner. mais c'est une expérience qui a été vécue par le euh. gouvernement sénégalais avec le président Senghor. da koy surveiller. d'accord expérience xam naa ko. mais da koy surveiller doo bàyyi noonu. avec la SOSAP. mais da koy surveiller de très près état bi daf ci am bët. Mm. teg baatam ñu xam ñooñu ñaata lañ gagner parce que foofu tamit impôt dina fa dugg. parce que ana ministre de l' économie boobu euh, économie maritime. xëy na peut-être dina nangu dina ànd ak directeur sàngam. Mm. ndax directeur sàngam après dina am yóbbal bu mu koy def. d' accord Aliou Sow euh, mu mel ni nag waxtu bi euh, xooj nañu ñu bàyyi nga tàggoon nag te amoon amaatoon nañ tamit euh, beneen ponk di peton véritablement des impôts au Sénégal ndax ñu ngi fay. impôt au Sénégal waaye xam naa ne. peut-être dañ koy denc ba suba dañ koy denc ba suba lu kii di wax Youssou Ndour li si des nag kuddu kafe la borom ma koy suuk nañu bàyyi ba suba. ñu yeggale ko xaw ma lan xaw ma ni ñu koy waxatee sax woy ba. waaw mooy te dama am envie way <laughs> léegi bàyyi bañ dem ci deuxième partie yàlla na yàlla sàmm je suis content je suis fier maman Khady Seck Khadiba <laughs> Diamniadio euh, Lac Rose maman Henriette à Alfortville yéen ñëpp mes enfants mes filles là entre la euh, la Suisse et Fribourg le sud de l'Allemagne. Mm-hmm. maa ngi leen di sant di leen gërëm et mon fils aussi le petit Mohamed yàlla na leen yàlla sàmm. je pense à vous Mame Diarra Cissé c'est Malika yàlla na la yàlla sàmm. d'accord Penda Diallo et puis les autres aussi qui sont de l'autre côté de la baie vitrée euh, euh Bintou Fall euh, sama gars yi ñoom Issakha mm-hmm. Pierre machin. Euh, mm-hmm. Kéba et puis naturellement l'autre neveu Louis. d'accord yàlla na yàlla sàmm kontaan nañu sëñ bi. jaar naa leen bu wér. mu nekkoon seen rubrique euh, actualité